discours Macky Sall bi dem de jàngat bi ma ci mooy maa ngi koy rafetlu parce que def na ko à son temps askan wi soxla woon nañ ko parce que cas yaa ngi yokk mi ngi ay décès waaw def na ko à son temps daal waaw parce que loolu lañ doon xaar ci moom te def na devoir am. ma comprendre que ni affaire yi mu ngi gën a ñu gën a yokk heure bi ba pare xam nga ibiwaat école yeeg genre yooyu noonu quoi affaire moom man moom pour dire vrai moom je suis pas je suis que affaire yi instant bii nii moom parce que chaque jour ngay dégg cas yoo xamante ne nii day gën di day gën di yokku cas communautaire yi muy lépp mu ngi gën di yokku man maa doon xaar leneen quoi lu loolu noonu. bu jàkkee yi moom d'accord naa ci parce que bu fekkente ne population bi 95 pour cent musulman la normalement war naa mën a ubbi jàkka te moom musulman la sax war naa mën a ubbi jàkka yi nit ñi daal di ñaan jàng alxuraan def seen i wasifa ñi jàng seen i xasida ñi daal ñaan suñu borom subhanahu wa taala di wàññi mbas mi nga xamante ni dafa wàcc ci réew mi te incha allah ci kàttanu yàlla dina euh, dina baax parce que bu ñu ubbee jàkka yi rek yërmande suñu borom day daal taxaw alxuraan ji ñu commencé koo jàng wàcce kaamil te ñu jël ay mesures nag distance 1 mètre yi ñu xam ne nii moom lañ wax ñu koy def bala ngay dugg ci jàkka ji nga takk sa mas nga laal sa gel waaw su ko defee ñuy sorante di julli normal suñu paree ñu désinfecté moquette yi ak jàkka yëpp désinfecté ko ba mu normal ñu teg ko en norme daal. Sénégal am na yoo xamante ni maanaam boo ci waxee rek mën nañ la dëkkal foo xamante dëggoo fa mais jaamu yàlla mënta am fu jaamu amul quoi achan comprendre xawoon naa see naa xaw a contre tuuti daal mais comme que def na ko sax gën naa am mbégte ndax dama ne woon ko ubbi woon ñuy am ñuy soriante tuuti nii di julli di def ñaan ci jumaa yi loolu lu baax lay doon Macky Sall il est le chef mën naa déglu askan wi mën naa déglu tamit kilifa euh, diine yi parce que kilifa diine yi bu fekkente ne dama am ay taalibe yoo xamante ne nii dañoo populé euh, population majeure partie bi kilifa diine yi ñoom la ñuy déglu ah moom tamit dina seet li nga xamante ne nii mooy avantage am mu def ko rek lii mu def nii nag avantage am la parce que dëkk bi commencé woon nañ xol yi di commencé yi jóg nga commencé gis yeneen tarixa yi commencé yi jóg di gis seen bopp is la julli gi nii ñàkk julli yooyu yooyu te mooy suñu président de la république kon nag war naa mën a déglu ñëpp koo xamante ne kuy wax rek war na laa mën a déglu bu ko defee mu boole xelam ak xelu ñooña boole boobu boobaa bu ko defee day daal di gën neex rek. mun na am gars yi nañ ko parce que dañ dañu dañoo tëj jàkka yi te ñàkkul ba tey am na ay kilifa diine yoo xamante ne ñoom ñu ngi ubbi seen i jàkka yi di di julleeg genre yooyu noonu donc influence day nekk ci ci mag yi quoi waaw man côté boobu noonu j'aurais mu jël ay waaw. ay propre décision yo xamné manam buy metti na metti buy tejj une bonne fois après on am ñu activité quoi